gëj naa lay gëj maa ngi nii de. nekkee tey sant yàlla kay. yaa ngi fi ñaar maa ngi sant bu baax maa ngi fi waaye alhamdulilah. mbaa ya ah. dara ça va. wax dëgg yàlla na ngeen def. yaa ngi fi ñaar maa ngi fi rek. ah waaw sant naa bu baax. na ngeen def. bàyyi naa ci jaar maa ngi sant kay. waa kër gi ña nga fa ña nga fa ña nga fa baax alhamdulilah. alhamdulilah. yaaw. danañ xool may naa lan lay def. madame Simata. maa ngi si biir. daf naka itee. gën ñaa laa gis. ba yaa ngi ci jàmm. xale yi léegi day moom. ñii dañoo wow bët. seen i solo ak seen i bët a yem. doy na waar ay mag yu nuyoo nga ñëw ni kàddu toog. <laughs> laa doy na waar. naka itee. ay maa ngi fi nag yaa ngi fi de. gën ñaa laa gis. ah waaw. mooy bañ a kii rek. <laughs> Ah, man kay yow war ma laa nga ci gis nag yow tamit bàyyi tam. ay góor nag. mais yaa ngi ci jàmm bu baax maa ngi sant bu baax waay. Eh, mm-hmm, mm-hmm. alhamdulilah. xanaa kii sa rakk la. kii de sama rakk la waaye dafa tëdd kii. Ah, xale bii ah léegi day moom. xale bii de. di seen yére xàppati ko noonu la ñu xàppati ko rek. da <laughs> ngay tey. ah yow moom sa kër gi gën naa yaatu di. ah kër gi ma ah, macha allah. yaatu na moom macha allah. te Ah, baaxul de. baaxul moom waaw ah. ah, xam nga jot amul. Mhm. te man xam nga ma rek damay rajax rajaxi rek jaar boobu ma ne woon naa fi jaar rek ñu waxtaan. Hmm, ba xam nga ay mag. ay mag du ñu gérer dañuy gaare. <laughs> boo reetee rek ma daanu man. Eh. ñaari doomu penn naar yii. <laughs> jigéen daal ñuul rek. waaw ma ne woon daal naa fi jaar ñu waxtaan. Mhm. ndax xam nga ay mag duñ fi nekk di di seerenteeg yooyu. waaw man daal sama xel dafa nekkoon ci ma ñëw daal def fulla ak fayda takk la mhm. waaw. loolu daal mooy wax ju gàtt ji jaruma koy guddal ak naan dama bëggoon ñu kii waxtaan ay mag ay bu mag. dëgg la Baye Tafa. bul di ree bul di ree. <laughs> bul di ree. <laughs> dëgg la de wax nga dëgg dëkkal gu mel ni moom faaw kilifa di fi daal. Ah, waaw waaye nag soo gisee yooyu yëpp du am. Mm-hmm. mooy duggalante beeg génn bu ñàkk fayda li daal laay bay. Mm-hmm. man daal comme ni nga ko waxee su fekkee loolu moo am. Mm-hmm. ndax xam naa la bu baax yàgg naa laa xam. xam naa la ci fulla xam naa ci xam naa la ci responsabilité. donc kon boo waxee loolu man tamit dama ciy sawar. jeex waaw bu fekkee jàmm la ak fulla ak fayda farata. amul benn problème mën nga ñëw ñu def farata. ah mbaaye man kat xam nga ni. kenn du la gis tubaari kàll nag. <laughs> xam nga ni man doxuma ci ay caaxaan. dina bañ. man daal li ma bëgg mooy. Hmm. ñu def fula def fayda. boobu ba tey yaa ngi may koy wax. boobu ba tey aussi tamit dafa amoon ci lu ma nekk. Hmm.